di ko tàmbalee ci sunu kilifa nag Cheikh Mouhamed Mountakha di ko ziyaare bu baax di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi te wéral ko te mottali yéeneem yëpp ci yoonu murit di ñaanal waa réew mi yëpp itam den nuyu ak waa bitim réew sax nuyoo ba gën a tedd ba gën a sell ànd ak siyaare bu mel noonu waaw mbokk mi li nga laaj ci tolluwaayu dëkk bi wala tolluwaayu réew mi wala tolluwaayu sax àddina si ci xew-xew bi xew-xew bi moom mooy li xew fépp mooy li nga xam ne jamono ngi koy dund ab diir lu man ñaari weer ba ñetti weer jëm sax ñeent àdduna ngi koy dund bu baax a baax xew-xew bi nag mbas lañu ko mën a tudde mbas nag moom lu yàgg am ci àddina la yàgg na fi lool waaye nun bu nu neexee rek ci mbas ñu tàmbale ci taarixul islaam ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbas amoon na moo tax yonent bi àddu ci ci ay anam yu bari xa boo dee seetlu danga gis ne mas naa wax ne at taawunu shahaadatun li kulli muslimin attaaunu attaaunu shahaadatun li kulli muslimin parce que ak texe la ak seede wala luy dugal nit ci ak shahid la ci bépp jullit boo xam ne faatu na ci moo tax ñu xam ne kon loolu lu amoon la jamono yooyu Seydina Omar itam Omar ibnu Xataab radiallahu anhu amoon na jamono yi mu jógee jëm ci barab te fekk foofa mbas am fa mu bëgg a dem waa na saxaaba yi waxtaan ak ñoom laaj leen lu ci seen xalaat jamono yooyu am na ku ko fàttali ne ko kat ku ñëw Abdurahmaan mun aw fàttali ko ne ko yonent bi kat sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci mbir mi ndax waxoon na ne ida samiatum bihi bi ardin fala taqdamu alayhi wa ida waqaa bi ardin wa antum biha fala taxruju firaaran minhu wax ko Seydina Omar ibnu Abdullahi ibnu Awf Abdurahman ibnu Awf waxee dafa daal di juboo ca loola daal di wax ne kon nañu jëfandikoo ndigal yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk na yonent bi itam sallallahu alayhi wa sallam hadis boo xam ne sayyidatuna aïchata ali wax ne laaj na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ani taawun ne ko innahu azaabun yabasu allahu ala man yacha wa anna allaha jaalahu rahmatan lil muminin laysa min ahadin yaqaw fa yaqaw taawunu fa yamkutu fi baladihi saabiran muhtasiban yaalamu annahu laa yusibuhu illa ma kataba allahu lah illa kaana lahu mislu ajri mislu ajri shahidin hadis boobu itam sayidna sayidatuna aïcha alayha assalaam radiallahu anha moo ko nettali wax ne loolu yonent bi moo ko waxoon kenn du mooy mbugal la moo xam ne mbugalum suñ boroom la waaye nag def na ko muy mbaane ci mboolem jullit ñi amul kenn koo xam ne mbas dafa xew nga toog fa nga toog jàpp ci yàlla muñ ko te yàlla tax lu dul yàlla daal a gannaaw boo gëmee ne lépp lu xew yàlla moo koy dogal ci yow te lu yàlla tuddul ci yow du mën a nekk lu dul suñ borom daf laa jox payuk ñi nga xam ne dañoo faatu ci xare te mooy shuhadaaw yi loolu amoon na nag kon nun dañoo xam ne kon xam nañ histoire mbas ci àddina si lislaam xam na ko bu baax jullit ñi xam nañ ko bu baax bu dee nun nag fii ci Sénégal lawaat na fii ci Touba ci waa kër Sëñ Touba xam nañ ko bu baax ndax jamono yu sëriñ bi nekkee njaareem mbas amoon na moo xam ne euh, yaatu woon na lool euh, faatu na lu bari ci réew mi njabootu sëriñ bi sax am nañ ca bokk ci ay taalibeem ak njabootam waaye loolu lépp dañ ci xame rek ne mbas lu yàgg ci la ci euh, àddina si xam ngeen ne mbas moomee mbas mu yaatu la woon ci diggante après guerre mondiale diggante quatorze dix huit ba mille neuf sax naaw bi lu ñuy wax grippe espagnole amoon na te loolu lépp fekkoon na fi sëriñ bi maa ngi dégg sax ñu ne jamono yooyu nun sëriñ Basiru jamono yooyu mbas mi ngi ko fekkoon Saalum jamono yooyu dafa amoon ñaari at yoo xam ne daanaka dafa mel ne euh, liggéey ak yër moo ko fa yóbboon ba mu demee bay bëgg a ñibbisi ndax dajanteeg mbas ma tàmbali euh, ñu dégg ko fii ci réew mi ñu ne kon nekkaat na fa as ndiir ba mu tàngaayo wàññiku mu door a ñibbisi ndax dundal xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wax ci ne fu ngeen ko dégg bu leen fa seen tànk bu fekkee nag yéen a ngi ca biir bu leen génn loolu jëfandikoo na ko foofu loolu ki ma ko nettali soxna ma dema loo moom sëñ daam Abdourahmane loolu te sëñ bi si yoroon ko moo ko nettali kon muy xisa bu wér mbas nag sëriñ bi bind na ci lu bari ndax bu nu seetloo bu baax daañu gis ne xasida yi néew na nga jàng ci ak xasida gu xaw a gudd dara ba mu jeex te gisoo sëriñ bi tudd ci alwaba te mooy mbas bu dee seetlu xasida yi nga xam ne rek ndeysaan fan yi sëñ Muntaxa génne woon na ko di sàkku ci nit ñi ñu jàng ko wala ñu di ko bari luñ koy jàng danga ci fekk sëñ bi tudd ko ca tudd ko ca ci baatu waba waaye ci yeneen baat yeneen baat yoo xam ne mënees na ko firee mbas muy ak diis ndax am na bayit boo xam dafa wax ne bi xaqi wajhikal wajhikal karim ya xafiis wajj ila gayri ayaadilal xaali xaalis xaalis jooju nag lu ci ak diis tax na manees na koo jàppe mbas ndax ba mu demee ci biir mi ngi wax ne ila siwa xisbiya wajjihil waba yaa man safaan daa li wahaba am na fu muy waxee it ne ba mu jàllee tuuti yàqi ayaaliyal waba allahu qad an wala ilaha illa allahu kon sëñ bi mbas moom xam na ko ñu yàgg koo gis di ko bind di ko gis di ko bindan ci xasida yi di ko jàng waaye teewutoon mu doon sunu kumpa ndax génération bii nga xam ne moom la ñuy dund muy waaye jamono ji ñi ci mas a fekkee mbas bariwut ndax ñu am juróom-ñett fukki at sax dañ ci fekke mbas bariwut xëy na gannaaw guerre bi 1945 bi amoon na tuuti lu ñu doon wax waaye booba moo gënoon woyof xëy na am na ab ràmm la woon mooy nit ñi seen yaram di def picc di tàng nga xam ne koo gis rek dafay mel ne der bi dafay mel ne deru mbëtt euh, waaye xëy na boobu moo gënoon na woyof mbas nga xam ne moo ko jiitoon boo demee ci xasida gi mu tudde làkkub Tuuba nga xam ne nun làkku tubaab lañ koy wax muy euh, Matlabul Fawzayni da nga ci fekk muy wax ne tuuba al mahru ah, al wa maxoof gi nga xam ne suñ boobu làkk na ko lépp lu ñuy bañ ak lépp loo xam ne dañ ko ragal boo demee ba ci biir loolu mënees na koo dendale ak mbas ndax boo demee ba ci biir mi nga wax ne wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayyib shurbaha wa aklaha muy bayit woo xam ne bayit wu yaatu la wu matale la woo xam ne yaakaar na am nañ ci ak rafet njort bu baax a baax a baax a baax ndax bayit wu yaatu la ndax moo wan fil waba wal balaaya kullaha la wax kullaha nag dafay feddale kon te day yaatal itam door a wax ne anha wa tayyib shurbaha wa aklaha kon sëñ bi moom xamal na mbas ah, dañ ciy dégg lu bari nag ndax dañ ciy dégg ne li nga xam ne moom la nu Cheikh Mamadou Mountakha wax barki démb ci déclaration bi nenu sëriñ bi lu mat a fàggu fàggu na ko waaye itam lu mat a ñaan ñaan na ko te suñ boobu nangul na ko ñaan gi loolu itam gëm nañ ko bu baax gëm ko wér te rafet ci njort lool ndax baat yi ba mu koy tudd booba nun la ëpp ci nun ñiy dund ci jamono ji booba kenn xamul fu nu nekk te sëriñ bi booba moom xam na ko te dund na ko te ñaan na ko te fàggu na ko kon xasida goo dem ñaari xasida wala ñetti xasida yoo dem waaw seete ca genn nga fekkoo ca baaw boobaa baatu boobaa itam mën naa am ñaari ca des boo demee da ko ca fekk mën naa am sax doo ko ci fekk benn yoon dong kon sëñ bi loolu da caa ñaan ñaan ñaan lam ca war ñaan lépp te kenn ku ne xam na ne jullit bu baax rek léeg-léeg mu ñaan ak ñaanam rafet ci njort ba defee suñu borom nangu na ko sàkkantuma nag kooku nga xam ne mooy sunu lépp sunu yaakaar te kenn ku ne xam na digganteem ak boromam mbas bi nag ñu ngi koy door a dégg dégg nañ ko ci ay barab yu sori dégg nañ ko ci fu mel ne Chine dañ ko jëkk a dégg mu sori lool ah mbas itam boo ko déggee foofu doo jékki-jékki rek jóg di ferferi ndax mbas daana def léeg-léeg boo amee fi barab ab gox lay nekk def fay def daal di jeexal daal di dem néew na lu mu daje àddina nii mu ko daje néew na ko moo tax mënuñu woon daal di ferferi fa saasa américain bi sax bañ na ko ba virus chinois bi la ko tudde woon xanaa ba mu demee ba dal ci kawam rek la xam ne kon du virusu Chine waa waaye virusu ñëpp la ñu jekk-jekk di ko dégg itali gannaaw bi ñu di ko dégg France di ko dégg Espagne booba nag la kilifa yi daal di jóg état bi daal ci def góor góorgóorloom kem kàttanam daal ci tàmbalee taxaw def xalaat yi muy def yi nga xam ne yëpp war na cee taxaw yaakaar na ne lii mën na ko fekk ba du ñëw mbaa bu ñëwee war na cee mën a taxaw ba du law mbaa bu lawee war nañ ko mën a jéem a faj yooyu yëpp mu taxaw ci kon ñoom itam def nañ seen wàll bu baax ñu ngi leen di gërëm ci loolu di leen sant sëriñ bi nag monsieur Amadou Mountakha mi nga xam ne moo moo nekkal sëriñ Touba tey fii ci Touba desul gannaaw benn yoon ndax ba mu xamee ne ba mu déggee ne agsi na ci réew mi gis ne itam taxawaay bi laaj na alal ju bari ndax xam ngeen ne lu mel ni bu amee. pexe ya nga xam ne moom lañu ñu war a mën a def ak taxawaay ya ba mën a ba law ga bañ yaatu na mu yaato a kenn war a xam ne alal ju bare koy def ndax day aaja ay déplacement aaja jël ay nit ñoo xam ne yëngu ci loolu ci daa ci région yëpp itam def ko itam ci hôpitaux yi def ko ci district def ko ci fépp ci réew mi loolu xaalis bare lay laaj alal ju bare lay laaj képp koo xam ne gis nañ ko ci moom itam ñu war a taxaw saytu ko quarantaine ko maanaam ber ko toppatoo ko ba gis ne moom la bu moom bu nekkee moom ñu doo tàmbali jublu ca pañ ma loolu wax dëgg yàlla alal ju bari moo koy def te ku ne xam ne itam lu mel ni bu amee eh, nit ñi seen yëngatu day wàññiku ndax gis ngeen marché yi ba trois heures mu jeex bu guddee kenn dootu génn lijjanti yu ci bare bare day daal di taxaw euh, kon ñooñu nga xam ne seen activité dafa wàññi te sekk du ñëkk ñu woon ay boroomi doole nga xam ne daanañu dem ba marché ba ñu doon faa wut bu dem seen kër ak ñi nga xam ne daañu xëy def yeneen pexe dépense doo ko dem seen kër ñooñu ñëpp seen mbir seen taxawaay bi day daal di wàññiku loolu nag kon faaw état bi dafa am lu ko ci war mu war leen a jàppale war leen a dimbale loolu ba tey alal ju bare bare koy def kon loolu moo tax si Cheikh taxaa bi mu déggee loolu nag mu daal di yëkkati moom ci am amam lu ma deux cent millions daal di koy jëbal état bi ñu ñu mën koo dimbale dimbandikoo ca loolee nga xam ne moom lañuy def ba mu ko defee ba noppi mu ci waaye dafa nekk dafa daal nekk lu ñu mën a roy mu digal it nga xam ne ñëpp dégg nañ ay waxam ñu fekk ko ca loola roy ko ca loola ba yaakaar naa ne fi mu ne nii mbooloo mu bari <laughs> def nañ ko waaye na gën a yokk bu baax a baax loolu kat bi mu ko daan def euh, bi mu woote magal pooxaan rek dafa daal di wax ne nañ daal tàmbalee wàcc ay kaamil tàmbali ko jàng euh, daal di wax ne le 27 février rek mu daal def déclaration daal di wax ne kat bu ñu àggee ca àllarba ji nga xam ne moom la wax suba la poroxaan na ko ne ñëpp jàng ay kaamil dana ko ñëpp wàcce kenn ku nekk nga fas ci mbas mi yàlla dax ko mbaa bu ñëwee itam yàlla wayefal ko loolu lépp ñu ñaan ko ba tax na def nañ ko ba tax na magal Porokhane ren ku ne xam na ne magal spécial la ndax dafa mel ne kër gu nekk daa mujj soppaliku daaree kaamil ci diggante àllarba ba ak alxames ci ah ñaan yooyee nag wax dëgg yàlla ngi ci gën a rafet njort bu baax ah, ndax bari na réew yi mu dugg balaa masaan am lu toll ne li mu am fii ci réew mi ñu dégg fay ci ay contamination du ëpp lii wala ñu dégg fa ci ay roo yu rot du ëpp lii nga xam ne moom la fi rot waaye yàlla na bu ci dara topp yàlla gën a néew bi mu jógee Porokhane tam ba joxe loolu mu jox état bi itam yemu ci waaye bi mu dikkee Touba kaa bi ñu wax ne feeñ na Touba bi ñu leen quarantaine dafa daal di woo ki xam ne moo fi nekk muy docteur Dieng daal di koy yëkkati ay ndimbal yu bari jox ko jox ko ceeb joxaat ko xaalis ne ko ñooy ñu quarantaine te nga xam ne mënee suwee na ñàkk a toppatoo bu ngeen demee lii na ngeen leen ci toppatoo te loolu docteur Dieng ci boppam ñu ngi koy sant di ko gërëm wax ne ko far waxal na ko boppam ba mu leer nañ ñi daal di yemu ca waaye e, mboolem barabi jaamukaay yàlla yi jàkka yëpp ak jumaay dafa dal di joxe ndigal nen nañ nañu nañu nañu nañu nañu nañu ña fa nekk di ko di fa taxaw nañu fa taxaw euh, doxale ko organiser ko noo xam ne dana dëppoo ak li nga xam ne moom la ministre de la santé ministère de la santé bëgg te loolu mooy li nga xam ne ordre mondial bi muy OMS organisation mondiale de la santé ñoom itam noonu lañ ko bëggee ndax boo demee tey ci jumaay Tuuba bala ngaa dugg da nga fa fekk ndox mu set ànd ak saabu ak eau savel boo xam ne da ko mën a raxasoo bala ngaa dugg sax ci miiru collecteur jumaa ji boo duggee ba ci biir bala ngaa dugg ci biir jumaa ji nag da nga fekk ku taxaw yor butéel boo xam ne alcool gel yii moo cay nekk kenn ku nekk mu defaree say loxo nga raayoo maasale doo ko dugg ci biir te boo duggee ci biir da nga fa fekk ñu tasaare ko tasaare nu woo xam ne kenn mënta jege sa morom ba di ko wàll loolu itam jumaa ji itam ñaari fan ñu ne ñetti fan ñu ne daañ ko désinfecté maanaam danañ ko pomp pomp boo xam ne dara mënu faa yàgg ndax bu te ne tey du yoon jamonoy mbas mi sax boo ko pompé benn yoon da nga fa dana am weer du jar pompaat waaye bu dee jamonoy mbas mi nag wuñ ko tax na ñaari fan ñu ne ñett daañ ko pomp loolu nag lu am solo la loo xam ne kon disposition yi maanaam taxawaay yooyu ak pàgguteef yooyu defe naa ne ministre de la santé yaakaar noonu la ko bëggee te organisation mondiale de la santé itam weesuwut loolu kon yaakaar naa ku fa dem ci barab bu saxel rek mënee dal war naa dal ci loolu te noonu mu ko defee ci jumaay Tuubaa ji noonu la ko santaane ci jumaa yëpp waxit ne julli mënta ñàkk ndax mooy symbole l'islam noddu ak julli mooy symbole l'islam waaye nag buñ ko naax saayal bu ñu ko effacé bu ñu ko annulé waaye nañuy nodd di julli waaye nag imaam ja képp bu fa nekkoon ak noddukat ba sax donte kenn moo leen ñettee boo boobaa nañu julli nañu nodd nañu julli te digalul jenn jàkka mbooloo di fa daje waaye nag li nga xam ne mooy sun ramsu al islam yi mu nga xam ne mooy mooy symbole l'islam bi loolu nañ ko fonk te nañ ko téye ndax ko jumaa yëpp bu dee ajjuma itam foo fukki ak ñaar daje doy na ndax loolu mooy symbole l'islam ci ajjuma foofu la farata ji tàmbalee ci ajjuma foofu la nisaab bi tàmbalee te fukki nit ak ñaar jàkka joo xamante ne téeméeri nit xañ fa wala juróomi téeméeri nit xañ fa wala juróomi nit xañ fa ñu ne fukki nit ak ñaar yaakaar naa bu boobaa yaakaar naa ku ne war naa maa taxaw ci koñ te yaakaar naa du ñu jegee mën nañoo ba a sax daanaka xaw a seenant kon loolu itam sëñ bi xalaatam boobu xalaat bu rafet la ndigalam loolu liggéey bu rafet la digle ne ko fii fi Touba digle ne ko Daaru Musti digle ne ko Njaareem digle ko Daaru Salaam na ko ñëpp respecté nee na itam na ko ñëpp respecté na ko ñëpp fonkal bu ñu ko yàqal ab liggéeyam ndax xam na li muy def ndax moom dafa bëgg a taxaw ci digg bi li nga xam ne moom doon lislaam sant mu sàmm ko kem kattanam waaye li xam ne itam ñiy saytu wàllu wér-gi-yaram itam ñu fonk seen i wax te bañ koo doye dal mooy itam ko kem kattanam kon bu kenn yàqal ab liggéeyam Cheikh Mountakha ñun ñëpp dañ ko defee ni mu ko wax loolu bu ñu ko defee yàlla mën nañ cee defal tawfeex li santaane yooyu mu santaane nag ñëpp nga ca am na ay benn ay nit seen nit bopp yoo xam duñu organisation duñu mbootaay duñu dara def nañu seen i eh, wàll mu ne ci wàllu nguur gi wala ci wàllu jumaa yi wala ci wàllu dispensaire wala dara def nañ ko waaye kenn jiitu ca Touba ca kanam ci njiital sëñ Abibu Mbàkke ak sëñ Abdoulahat moom sëñ Abibu ak mbooloo bi nga xam ne moo topp ci seen gannaaw def nañ ci taxawaay yoo xam ne taxawaay gënu ko rafet génn nañ lu mat quarante cinq millions tasaare ko ci daara yi ak jàkka yi ak jumaa yi ngir euh, loolu ministre de la santé bëgg te mooy li nga xam ne moom la organisation mondiale de la santé bëgg ñu mën koo doxal ba mat sëkk kon ñoom itam am nañ leen jaajëf bu baax waaye muxaddamatul xidma bi nekk ci jumaa ji te di ko taxawee kenn raw leen ñu góor góorgóorlu bu baax ndax lii bi ñu koy xalaat di ko jëkk def booba sëñ bi joxagu leen dara tubaa ci Kanam joxagu leen dara ñu xalaatal ko seen bopp def ko kon ñoom itam dëgg-dëgg seen liggéey rafet na bu baax a baax a baax waa bitim réew kenn fàttewu leen sëñ bi déclaration bi mu def barki démb déclaration bu yaatu la bu am solo la mu wax ne nañu xam ne waa bitim réew mi ak waa biir réew mi ñoo yem at te loolu nañu xam ndax kenn xamul fu yi fi nekk mi ngi foofu mi ngi fii na kenn ku ne fa nga nekk nañ ko doxalee nañ ci ci jëfandikoo sunna te mooy li nu waxoon ne yonent bi nee na koo xam ne fa la fekk toog nga te muñ te xam ne yàlla rek mooy def euh, lu dogal ci yow mu neex la bu boobaa itam da nga boo ca muccee it da nga am tiyaaba ju kawe boo ca muccut itam nekk shahid te ku ne xam na ne jamono yi kenn xamul ku cee mucc ak mucc mucc waaye li jullit ñi sañ a def mooy ñaan yàlla seen kem kattan bu ñu fa jógee ñu def recommandation yi nga xam ne moom la njiit yi paj paj gi bëgg loolu mu ne su ko weesu ku ko def sa jaan wàcc na kon ñoom itam ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant waaye di leen gërëm waaye leen ñaanal nag ndax lu mën a xew noo leen jatane ndax bokk yaa ngi fii suufu sëñ Tuubaa saa ngi nii lu mel noonu waaye nag suufu sëñ Tuubaa moom fii la waaye barkeb sëñ Tuubaa nag moom ak darajaam ak kattanam yaatu na lool kon fu faay nekk na ko fa yaakaar nañu dalal seen xel bu baax a baax te bañ a fàtte it dimbalante gi nga xam ne sëriñ bi waxoon na ko mooy e, waa bitim réew seen bopp fonk ñoom itam seen dimbalante bañ a fàttante ndax mbir mii kat voilà euh, bala nga bala bala balaa kenn waxaati lu sotti ndaa jeex ci àdduna si ak jàmm kon denc bi amul solo kenn ku nekk la nga denc la nga ci dimbale koo mën a dimbale sa kem kàttan kon dimbalante leen ni ko sëriñ bi waxe euh, ku ngeen fu gis da nga xam ne karanten bi wala confinement bi jàpp na ko ba mënta yónnee kanam dara nañu ko daal di taxaw daal di koy jàppale fii ci réew mi itam ñu defe ko noonu bu jëree sax ñu former ab comité boo xam ne day taxaw ci ndimbalante yooyu ngir ñu di ko toppatoo di ko jëlee ak di ko séddale ak ak di ko jot sëriñ bi sëriñ bi joxe ña ko soob mu jox leen ci ndigal ñu taxaw ko bu boobaa loo itam lu am solo lay doon kon loolu daal noo ngi koy fàttali ñëpp di adresse rek li ci des mooy di gannaaw bu ñu sante état bi ni ma ko waxee woon ci ngeen benn gërëm ko itam euh, quarantaine bi ak euh, euh, ak ak état d'urgence bi ak couvre-feu bi yëpp baax na yaakaar nañ ne war na cee mën dara ndax xëy na nit bu ñu wàccee daanaka trois heures guddi gi itam ñu téye seen tànk euh, daanaka huit heures ba bët set jombul pollution yi dana wàññiku jombul li nga xam ne moo nekkoon ci jaww jax ca ci lu waroon a mën a contam nit ñi jombul mu wàññiku bu ko defee buñ xëyaatee jaww ji set mm, sellaat ñu mën a delluwaat suñu liggéey loolu am solo la ñu ngi leen di sant bu baax ñi nga xam ne ñoo koy ñoo koy ñooy saytu loolu daal euh, la ñaan rek ñu gën a dolli dawal yërmaane ci nit ñi gën leen a bàyyi xel ndax itam euh, am na ñoo xam ne jubluwuñ ci ak caay-caay jubluwuñ ci ak luubute waaye dañuy dox rek ci dogalu yàlla ba guddee jàpp leen wala gàllankoor jàpp leen ñu ñu ñu ñu ñu des ci biti gannaaw waxtu wi ñooñu itam jëm leen a xàmmi ndax du caagee ne loo gis muy kutumbalu ci aw yoon rek aw miskil la déedéet daaw fekk na nag mm, am na ñoo xam ne yàlla mën na leen nattu ñu dox waxtoo woowu te fekk na sax ñoom ci seen bopp bëgguñu ko woon a dox loolu daal mën naa dawal yërmande ci ñoom jëm hmm, leen a xam ne jëm leen a bàyyi xel ba nga xam ne alagat si biir itam koo ci xam ne eh, lu wuti taxul nga def ko caay-caay taxul nga def ko dëgër bopp taxul nga def ko bu boobaa itam ñu mën laa eh, dimbale ma nga mucc ca loola kon maa ngi dellu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan nag eh, maa jullit ñëpp ñu ànd ko ñaan ci eh, yàlla mu jële fi eh, corona bi coronavirus bi ci àdduna sépp mm, ba kenn dootu dégg aw turam mu delloo ko fa mu ko woon fa mu ko dencoon ba àdduna sosoo ba nag ni mu delloo ko fa wala mu naax saayal ko ba kenn dootu dégg aw turam ñu koy ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa